الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جناب ني بسبحانه سبحانه وتعالى julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk ragal borom bi subhanahu wa taala ak bàyyi xel doxalinu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa si suñuy si suñuy wax si suñuy jikkoo ak ci suñu mboole mi jëf mbokk yi ñu xam ne borom bi subhanahu wa taala daf ñoo bind ñu fii ci àdduna ñu war a jaamu borom bi subhaanahu wa taala wéetal ko ci jaamu boobu ñoom ñoo xam ne nangul na yàlla borom bi subhaanahu wa taala ci topp ko ci jaamu ko ci bañ ko bokkaale ak dara waaye am ñoo xam ne dañoo fettéerlu topp seytaane topp seeni bànneexu bakkan topp li nga xamante ne moom moo nekk fii ci kaw suuf loo xam ne dafay réeral mbindeef di réeral doomu aadama yi waaye ànd nag loolu borom bi subhaanahu wa taala bind ay mbir daf ko mu nekk ay sunna yoo xam ne yëpp dafay wàcc ci kaw suuf yooyu bokk na ci borom bi subhaanahu wa taala tax mu wàccee ko ci kaw suuf boole ko ci ay ndogalam mooy pour nattu jaam yi ñan ñoo ci dëggu ak ñi nga xamante ne ñoo dëgguwul waaye yooyu borom bi subhaanahu wa taala daf koy won ñi nga xamante ne ñoom ñooy jaam ñi waaye moom loolu xam na ko démb lu jiitu muy bind doomu aadama yi bokk na ci loolu fitna yi nga xamante ne ak musiba ak balaa yoo xam ne borom bi subhaanahu wa taala dina ko wàccee si kaw suuf kon ñu xam ne ci jamono ji li nga xamante ne moom mooy phénomène fitna yi ak li koy wane bëri na lool te commencé na dugg li nga xamante ne moom mooy xeet bi bal fitna yooyu dafa làmboo mbooleemu àdduna ci ay anam yu wuute ci ay forme yoo xam ne yu bari la te loolu boo ko xoolee dafay dëppoo borom bi subhaanahu wa taala li mu wax ci alquran wala mu dëppoo ak li nga xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam prédiral na ko ne dina ñëw balaa jamono di tukki ci xutba bi incha allah dinañ jéem wax lenn ci manifestation fitna yooyu ak li nga xamante ne noonu lañ ci mën a muccee mbokk yi yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa xibaaral ci mujjug jamono fitna dina bëri waaye ñuul kukk mel ni guddi goo xam ne bu lëndëm kurus la kenn du gis dara nee na fitna yi bu ñu ñëwee noonu la ñuy mel ngir tar bi ñu tar lëndam bi nga xamante ne lañ ko ak linga nga xamante ne noonu la ñuy tiital doomu aadama yi al imaamul buxaari rahmatullahi alayhi dafa solo benn xadis boo xam ne abu hurayra radiallahu anhu moom moo ko jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne xam ay fitna dina ñëw ki toog bañ cee dugg moom moo gën ki nga xamante ne moom dafa taxaw waaye ki taxaw moom moo gën ki nga xamante kidoh, moom mu ngi dox kii dox moo gën ki nga xamante ne mu ngi ciy xaw a daw di dugg ci li nga xamante ne moom mooy fitna boobu nee na bu ngeen ñaanee borom subhanahu wa taala mu musal leen ci fitna yooyu mën na leen ci musal képp koo xam ne am nga place boo mën a làqatu nga lépp loo xam ne nga ko def ba mucc ci fitna yooyu ni ngeen naan ko def te musu ci borom bi subhanahu wa taala kon loolu xibaar la boo xam ne mu ngi bàyyeekoo ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci am ay fitna fitna yooyu nag dafa am ni muy feeñee bokk na ci li ci jiitu mooy bu ñu demee ba xam-xam néew bu ñu waxee xam-xam nag mooy xam-xam boo xam ne mu ngi tegu ci alquran ak sunna yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu demee it ba mbaax néew bu ñu demee it ba ñuy baax néew loolu dafay wane ne fitna commencé na tàbbi ci xeetu lislaam abu musa al-ashari radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na lu jiitu yowmal qiyaam di taxaw nee na dina am ay mbir yu feeñ nee na bokk na ci réer bu bëree bëri dina feeñ ci doomu aadama yi ويالا سبحانه وتعالى دفاي يكتي خم خم ويكثر فيها الهرج واي لينتي الهرج لينتي بري من والحرج الموت تمم واي آه، مم واي دي مو هارتي بالن حديث من برام سبحانه وتعالى دنا دم بروتي القران جيلو كو تي دن ما نيغا خامتاني نيم نيوكو موكال نانا نك دينا دم با لن تي لو خامتاني القران لا دينا دات في تي كاو سوف loolu nag ni muy amee mooy borom subhaanahu wa ni muy jëlee borom xam-xam yi ak ñi mokkal alquran di leen faat kenn par kenn ñuy dem waaye ñi réer di réeral nit ñi di feeñ waaye nit ñi tànn ay njiit yoo xam ne jàpp nañ ne ñii ay borom xam-xam lañ wala ñii dañoo nekk ci yoon wu jub fekk loolu nekk fi moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne inna allaha لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء بتاجي برم سبحانه وتعالى دفي ركي خم خم بركي دل من يجا خم دل من يجا أمون مواي نم كوي دفع مواي برم خم خم من يجا من يفاتو كن فات كن دجين أدنى من حتى إذا لم يبق عالما نين دم برم سبحانه وتعالى في باي بل برم خم خم ci beneen riwaya dafa ne xataa ida lam yabqa alim day dem ba borom xam-xam du fi dess nee ittakhadha an annaasu ruusan juhala do mo adam yi dañuy jàppe ño xam ne ñu réer lañ jàppe leen seen njiit njiit fofu mom bu ñu jàpp ne rek mom moy njiitu aduna mais mom moy njiit ci lépp ci aduna ak li nga xamantene mom moy walu diine motax yaron rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne فافتوا بغير علم نيو دنج لن دي لاج اي مساله تي والو دين واي ني اوبي تي دنج بن كو تك خم خم دي اوبي تي بن كو تك خم خم فن كاي تك تي سيني باني خو بكان فن كاي تك تي سيني انتري ليغا خامتاني كوجاتو ادونو بني ام تي دومو ادمي من فضلوا وضلوا نيو دا فك رير نان ما با دي رير نيو خامتاني نيوم نيوي نيوم نيوي جامي kon loolu lu jar a bàyyi xel la ci jamono ji nga xamante ne ci la ñu nekk mooy xam-xam dees ko wut dañ koy jàng waaye xam-xam kenn du ko doon xam-xam duñ ko askane la ci ay famille xam-xam duñ ko askane la ci sant waaye xam-xam mooy bi tegu ci alquran ak sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam te nit ki góorgóorlu sàkk ko bu borom subhanahu wa taala jox ko ci li nga xamantene mom la wara am waye waaye ñu tok rek ñi nga xamantene ñom ñoo fi nekkoon ay borom xam-xam faatu ñu jël seen doom wala seen set japp ne ñu ñam ñay borom xam-xam ya ndax ci fami sangam lañu bok wala ci askanu sangam lañu bok wala santu sangam lañ lañ am comme ni nga xamantene non ngay bañé comme ni nga xamantene non ngay bañé nga febar sonn lool sa kawlal soxla dem hôpital bojogi joge do dem ci serigne bi nga xamantene mom moy mooy alquran do dem ci ki nga xamantene mom moy ki kii ñaw da ngay wutale hôpital xol ab docteur bo xamne japp nga ne ki dafa jàng ci mbirum pat waye docteur bobu it bu la xolé ba pare xamne li lii masalan nga ñew ci ko xamne généraliste la bu paré xamne yow fièvre xol nga am dafa na dama ci wajale kat moy cardiologue bu mo xam li wala sa sucre mo bari fanaan demal ci kële jabetologue bi moom mo xam mbir yi wala problème bët nga am nee dama ci ophtalmologue comme li nga xamantene ne ngay wéré ay spécialité ci walu médecine diina ji mbokk yi loolu la du képp ku jog rek war a wax ci diine du képp ku jog rek mo war sax wa moy li nga xamantene ñom ñoo ci xootal jang xam ko ñoo ñom na ci war wax comme li nga xamantene non lañuy bañé ñuy suñu yaram ñoo xam amu ci benn xam-xam noonu la ñu war a bañee bu fekkente ne ñu ngi laaj loo xam ne dafa aju ci wàllu diine ñu laaj ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko xam ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko jàng mbokk yi bokk na ci mosahiru fitna yooyu mooy xillatul xayaa bu ñu demee ba sa wàññeeku ñeme yàlla bëri futteeku bëri ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy jigéen ñi dañu xam ne li nga xamante ne moom mooy fitna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon prédire ñëw na yonente bi alayhi salatu salaam dafa ne am na ñaari catégorie doomu aadama yoo xam ne waa safara lañ te gisaguma leen maanaam dañuy ñëw mu jub jamono nee na benn catégorie bi mooy ay doomu aadama yoo xam ne dañuy yore ay yet yet yu dëgër yoo xam ne dañ ciy dóor ay doomu aadama doomu aadama yoo xam ne waxuñu lenn lu dul borom subhanahu wa taala la ñuy jaamoo dafa ñu lenn lu dul wéetal borom sori li nga xamante ne moom mooy shirk dafa ñu lenn lu dul dénoncé leeral lan mooy bokkaale borom bi subhaanahu wa leeral lan mooy sos ci diine borom bi subhaanahu wa taala jàpp leen di leen caw mu ne ñaareelu catégorie bi ay jigéen lañ yoo xam ne bëri nañ yére waaye dañoo rafle dañoo jeng waaye di jenglaate seen bopp yi mu ngi mel ni jégalu gëléem نينا لا يدخلنا الجنة نينا دي دي الجنة ولا يجدنا ريحها حيث الجنة سهد لنا خين اه، الجنة بو فكير من دخ أي دخي أت خبي من لا خين دلا خين صح وعنينا نيوني لم يتاكي مويدا ني ساري لنا خمتين بو مير مدي برم بي سبحانه وتعالى بقرة مظاهر يويو موي بني دمي بقولتي نياك تي دومو ادمي benn kaw kaw dafa ñëwoon ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laaj yonante bi alayhi salatu salaam ne ko mata saa yowma alqiyaama kañ lay taxaw yonante bi alayhi salatu salaam ne ko ida diyaat al amaana bu ñu demee ba sànq li nga xamante ne moom mooy kóolute wóolootuñ kenn kenn wóoratul mu ne fantadir saa jamono jooju nga xaar li nga xamante ne moom mooy bés penc te loolu moom yaakaar naa ñëpp gis nañ ko ana ñaata ci ay doomu aadama yoo xam ne denc denc nañ leen ay kees moo xam ay kees réew la wala kees société wala kees ay station ñu këpp ko def ko ci li nga xamante ne moom mooy seen saali ko bopp ana ñoo xam ne denc yoo xam ne dañ kaa war a denc waaye ñu génnee ko tasaare ci li nga xamante ne moom mooy presse bi wala ci yeneen i canaux loolu mooy ida duyaat al amaana fantadir saa mutacci mu ne kayfa ibaratuha manam sank li nga xamantene mom moy mooy bobu nan lay amé mu ne bu fekkente ne dem nañ ba mbiri ñu jox ko ñi nga xamantene ne di moomuñu ko mbiri ñu jox ko ño xamne ne moomuñu ko kon bokku na ci lool moy li ñu tudde yenn responsabilité yi ñu bañ ko jox ñi nga xamantene ñom ñoom ñoo ci am compétence ñi nga xamantene ñom ñoom ñoo ci am capacité waaye jox ko diw rek parce que ñoo bokk famille jox ko diw parce que ñoo bokk sant jox ko diw parce que ñoo bokk tariqa jox ko diw parce que ñoo bokk sëriñ loolu rek jox ko diw parce que moom moo indi xaalis ger na nee na bu ñu demee ba gis loolu dañu xaar li nga xamante ne moom mooy yawmul qiyaama naka noonu ci wàllu xam-xam yi xam-xam bi nga xamante ne moom mooy xam-xamu diine mooy bu ñu demee ba mbir yi ñu jox ko ñi nga xamante ne yella woñ ko amuñu si benn capacité xamuñu ci dara ñu ya jox leen ko fantadiri sa te ñooñu nag ñoom ñooy ñu ëpp la ñuy yàq ndax ñooñu mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a defal xol yi fajkat ba li muy defar mooy yaram waaye xol li nga xamante ne moom moo koy dundal di ko suuxat mooy pas-pas bi di wér bi nga xamante ne moom moo fa nekk bu fekkente ne nag docteur bi nga xamante ne moom moo war a lijjanti loolu xamu ci dara kon nañu xam ne yaram boobu moom wala xol boobu euh, dayana kon kóolutee li nga xamante ne moom mooy responsabilité yi ñu jox ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko moom ibnu batal rahmatullahi alayhi nee na ñi nga xamante ne ñoom ñooy aima yi di boroom xam-xam yi yàlla subhanahu wa taala def leen wóolu dénk leen jàmm ñi kon farata la ci ñoom ñuy laaye biir ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàmm ñi xamal leen pas-pas bu wér xamal leen sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam moytuloo leen shirk moytuloo leen bida moytuloo leen mooy borom bi subhaanahu wa kon nag mbir yi bu ñu koy dénk nañu dénk ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci am capacité nee na bu ñu ko joxee nag ñi nga xamante ne anaam liñ bëgg rek mooy kontaan loo leen ci wàllu alal joo xam ne am nañ ko bu boobaa dinañ yàq li nga xamante ne moom mooy adduna yàq li nga xamante ne moom mooy suñu àllaaxira kon mbokk yi ñàkk kóolute googu lu dañ di nekk ci li nga xamante ne moom mooy xeet bi ba li yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax dem ba am mooy ne nit ñi dinañ dem ba li nga xamante ne moom mooy seeni jëndante jaay dañuy dem ba ragal yàlla dootu ci am dañuy dem ba kóolute dootu ci am lu leen neex lañ ciy def dañuy dem ba jàpp ne sax amul kenn koo xam ne ku wóor la jul benn doomu aadama ne ne ah fulaan de dëkk kër sàngam kooku de ku wóor la ñu jàpp ne kooku am xel la moom moo ëpp xel ci nit ñi moom moo gën a baax moom moo gën a dëgër mais nee na yonent bi alayhi salatu wa fekk kooku buñ ko xoolee sax duñu fekk benn pepp suuf ci loo xam ne moom mooy ngëm duñ ko fekk ci xol yàlla ci borom subhanahu wa taala mosal ñeenteel bi ci mawaahir yi mbokk yi moom mooy bu ñu demee ba xeex yeeg dee yi bëri comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee wa yakthuru lharj waaye li ci gën a grave mooy bu ñu demee ba ba xeex yooyu du ñu xam lan mooy sabab ba ba nit ñi siy dee du ñu xam lan moo tax ñu siy dee ki rey du xam lan moo tax muy rey ki ñu rey du xam lan moo tax ñu koy rey maanaam dafa nekk loo xam ne anarchie la désordre la boo xam ne saaroo la ci kaw suuf te li ko waral nag moom mooy li jiitu moom mooy bi ñu demee ba mbir ya dañ ko jox ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko yelloo ñi ko moom waaye ñu jox ko ñi nga xamante ne amuñu benn responsabilité wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne maa ngi génn ci ki nga xamante ne sama bakkan mu ngi ci loxoom dina dikkal nit ñi jamono joo xam ne kii rey du xam lan moo tax mu topp doomu aadama ji leen rey waaye ki ñu rey sax du xam lan moo tax moom ñu koy ñu ko rey bokk na mbokk yi mooy bu ñu demee ba li ñuy tuddee am-am alal dem ba loolu rek moom mooy soxal nit ñi nan la ñuy def ba am nan la ñuy def ba bari la loolu donc moom moo li day yitteel dañu xam ne kon fitna yi wër na xeet bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon saxaaba yi ne jullit ñi ragaluma ci ñoom li nga xamante ne moom mooy ñàkk du ñàkk laa ragal ci ñoom waaye li ma ragal ci ñoom mooy ñu dem ba ñu yaatalal leen ci àdduna tàllalal leen àdduna ba ñu jàpp àdduna fàtte li nga xamante ni moom moo leen fi taxoon ñëw jàpp àdduna fàtte li nga xamante ni moom moo leen fi taxaw ñëw ñu commencé nag di si jëkkalante di si jëkkalante ba ñu alku ko li nga xamante ne ñi jiitu woon jullit ñi ci loolu la ñu alku woon kon loolu lenn la ci li ñuy tuddee mudaahirul fitan fitna li nga xamante ne moom moo koy wane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 أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم